asalaamaaleykum wa rahmatullahi salaam taala wa barakaatuhu nee na mi ngi nuyu ñi fi fekk ñëpp di ci jiital madame la ministre Zahra Iyane Thiam di suñu xarit di suñu sœur di suñu lépp nag moo sabab sama tànk yi ñëw tey ba fii ci siège bi ak permanence am bi li wax léegi day dëgg nit bu jëmee cib xare bu geesoo war a gis ay bokkam war a gis ay dëkkaaleem war a gisit ay xaritam te moom lépp lu mu sumb ñun ña ca bu nu gisee ak bum nu gisul moo sabab sama tànk yi nag tey te li ko waral nag lu yàgg yàgg yàgg la te moom xam na ci dara tey moom yàqu ci dara bi mu ñëwee Touba waxtu wi daaw bi mu àggee sëñ Modou taxa dafa ko ne yow sama doom nga loolu cër la ndax sëñ bi du ko wax ñëpp te noonu mu ko waxee noonu la nekkee kon kenn du na tànne loolu kon faw ngeen xam ne ki leen président tànnal day kenn ci réew mi ci kër goo dem ak ci dayo ndax tey jii la ñu jëlal ca tànn ba mooy compétence bi mu am ak qualité yi nga xam ne mi ngi ci moom te man ma man koo seere biir na ma ne ñun ñu ànd ak moom di campagne ci doxalinam ci démarche am ci approche am xam ngeen ne kilifa ngeen nekkal ku dugg rek tey ci kër gi gis ni ñu ko waajale nga xam ne li xam-xam moo ko lal te gox bi nag xam-xam la soxla soxla ndaw ndaw lu sawar ndaw lu bëgg te loolu moo ne ci moom moo tax mu am kóolute kilifaam di suñu kilifa ñun ñëpp muy le président de la république Macky Sall mu ne ko foofa yaa ma fa doy te loola lu bari war koo waral muy fidélité ak loyauté ak jàppam mais surtout ak ak engagement bi mu am ci wetu président de la république pour le développement du Sénégal mu yéene leen ko nag lool indi leen ko tey kon li sëñ si di wax sëñ Fall wax ko man ma wax ko mooy loolu nañ ko xam xam yéene ji xam man-man ji ñu téye ko ak sunu fukki loxo moo tax ba yéen ñëpp. maa ngi leen koy dénk ngeen xam ne day buñ ci àggee jàmm bu ngeen ko joxee seen i carte fu ngeen bëgg gox bi dem fa dana dem fu ko raw ndax man na ko yéene na ko te dana ko def incha allahu taala te lool buñ ci amoon lu ñu leer du ñu ñëw fii di toog ci wetam candidat yi bari na te loolu fuñ ko def it bariwul wax dëgg yàlla xam nañu suñu yaakaar tas ci moom ndax yaakaar ji ñu am ci moom te am yaakaar yu ko jiitu muy yaakaar suñu kilifa yu baax yooyu di yaakaar président de la république suñu yaakaar doog a ñëw te ñooñu am nañu gis-gis du ñu juum ci seenub joxoñ kon soxna si na nga dox ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla may la li ngay wut ndax la ca topp muy yorin wi ak sellal gi ak jëmale ko ci kanam amuñu leen luñ ci natable loolu moom suñu borom def na compétence ci yow dañuy ñaan rek yàlla jubale la ak waa gox bi ba mboolem ñi fi dëkk xam li ñu am lan la téye ko dañ ko war a téye ndax yow kat xam nga ñi nga nekkal war nga leen yar war leen teggin am ci ñoom war ma fonk leen di leen jàppale guddi ak bëccëg kon yow li la war sa diggante gox bi yaa ngi koy def ci ay teggin ak surtout ci sutura kon dañuy ñaan yàlla rek ñoom itam ñu gisee ko noonu dégge ko noonu te amuñu sax ci lu ñuy nattable sunu borom gën leen a jubale ba li ngay wut nga am ko ba li nga leen yéene nga mën leen koo defal ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baal ñëpp ax di nuyu nag ñi nga xam ne ñoom la Cheikh Modou Kara Mbacké doon yebal loolu du hasard ndax sëñ bi day suñu lépp barke dem rek la yónnee ci man di ma yónnee ay poème bi mooy ci sëriñ bi ne maa ngi nii ndar di ci noppalu waaye koo ko mën a partagé am nga ci ndigal maa la ko jox kon su ma ñëwee fii tey jii daje feeg yéen ànd ak ak doomam yi ak jarbaatam yi du hasard nee leen ko ñu ko ziyaareel te de ko seen tànk yi ak daje bi ñu fi daje day wane rek ne ñun juumu ci tànn gi ñu ko tànn ndax moom mooy suñu kilifa ak i kilifaam te ñoom ñooñu ko joxoñ kon ñu ngi sant di gërëm jërë ngeen jëf ñu souhaité bonne ndax bool kenn du ko ñëdd te liñ ci wax lépp ci teraanga su ma ci bëggee teg leneen rek day nekk leneen moo tax duma guddal damay seede benn rek ndax bu ñu bés bu ñu waree tontu jëf ji ñi ngi ñaan suñu borom ñu fekke ko amin te xam naa ne dana am incha allah waaye li may wax ginnaaw bi ma leen nuyoo ziar leen di jël ziar bi ak nuyoo bi yëpp di ko teg nag ci loxo sama mag ji sama xarit di nuyu it waa kër sëñ Modou Kara Mbacké Noreyni di leen yóbbante nuyoo ak ziar ci xalif bi sëñ Mor sëñ Mourtala ci ak mboolem njaboot sëñ Tuubaa gépp di feddal nag bu baax suñu kóllëre ci moom benn rek laay seere damaa bëgg a seeral ñii nga xam ne aw leen ëpp ndax li def ay at mi ngi metti nooy ànd buy naqari nooy ànd. bokk ci njabootu bopp. ndax sama ay sama samay mag ak samay rakk ak samay tàntaak samay umpaañ ak sama ñëpp ngi ci bokk. dama leen di seedeel ne kii kenn la. dama leen di seedeel ñoom ñëpp ne Cheikh Abdoulaye Mbacke kenn la ci man. fu ngeen ko gis man ngeen a waat ne man ñii ngeen gis. wax maa ko lu mu wax maa ko wax. lu mu santaane maa ko digle lu mu digle maa ko digle kazaalika lu mu defit noonu la te fu mu taxaw incha allah dama gis ci wetam kon ku ko tooñ tooñ nga ma jërë ngeen loolu daal lañ boobu seet li ci des rek moom li ñu ko gisee rek amin kon ñu tàllal loxo yi sëñ bi defal ñu ñaan